sëñ Modou bu musli couture li nga sol lan la sa bula lan la jàppale waa bés bi rek bokku si bés bi waa yow jàppale waa bés yow da ngaa bokk si bés ndeysaan sa bula rafet na daa mel ni man ngay jàppale nag mbas gisoo la bàcc bàcc xool dafa mel ni sëñ bi man lay jàppale sëñ ñu bàyyi la nga wax ñu lan mooy sa teewaay tey fii si bés waaw sant yàlla di nuyu waa àdduna donc sama teewaay bis mooy bokk ci bës bi bokk ci association des maîtres tailleurs du Sénégal muy ADESMAT donc sama teewaay fii lu war la moo tax mënut a ñàkk la lu war a nekk la moo tax ma jëm nekk fi jëmmal bés bi vraiment di sant Sénégal yëpp ndax li ñu organisé nii yombul. te ku ne xam na ne bés dafa diis su soirée bu mel nii organisé ko yéen tamit ngeen ci bu baax a baax a baax a baax vraiment di kontaan di wax ne euh, on est ensemble avec daanaka léegi waxtuma Sénégal sax àdduna parce que lii dafa rëy gis nga ni mel donc sant nañ leen surtout yéen nag vraiment yéen tamit seen taxawaay rafetlu nañ ko di leen sant di leen ñaan jàmm si di bëgg mu nekk ci si di jëm ca kanam yàlla na ko yàlla def. xam naa dañ bi am na leneen lu mu mérité kon ñu ngi lay bàyyi nga daw foofu. Badji Samb sëñ Modou li mu wax nee na yal na sunu télé bi jëm si kanam kon ameen rek lañ koy wax. ok jërëjëf sëñ Modou.